muy candidate boo xam ne dafa bëggoon bokk ci élection présidentielle yi bu mare lool waa conseil constitutionnel. damay ñaxtu kontaanuma conseil constitutionnel li mu def jaarul yoon. te kayit gi ñu génne naan dafa am lu ma manqué muy caution du dëgg tey du dëgg suba du dëgg gannaaw suba. njiital parti bi di kaar leneen professeur Amsatou Sow Sidibé mi ngi fësal ay preuve yu mu jàpp na leer na naññ. 30 millions depuis le 20 décembre ba ma demee joxe ji chèque bi waa caisse de dépôt et de consignation defal nañ ma attestation mu ngi nii buy wane ni fay naa caution ba pare defal ma quitus bi le 21 ba ñu demee conseil constitutionnel man mi man maa wàññ papier yi ñu laaj mais ba ñu defee demee forage dem xaw ma fu sama caution dugg bi loolu amee mandataire bi ne leen kon boog suba ñun dinañ ko lijjanti man ni maa dem police centrale wuti benn certificat de perte jóge fa demaat CDC ñu defal ma duplicata maanaam ñu copier waatal ma kayit ya ma fa ya ma fa amoon ma daal di nag donc euh, jébbal ko waa conseil constitutionnel kon boog ñoom yore nañ sama caution mu jàpp ne lu ñaaw la lu waa conseil constitutionnel daf ciblé maanaam diir ay candidats yoo xam ne dañu leen bëgg a génne ci élection présidentielle yii di ñëw. dañuy ciblé ay nit ñoo xam ni xaw ma lan moo tax bëgguñu ñu bokk waaye loolu ni koy defee moo ñaaw bu ñu bañee c'est que nag bëgguñu ma nekk candidat te man dama liggéey parrainage amoon naa juróom benn fukki junne. ak juróom euh, juróom benn téeméer ak fukk ak ñett ci parrainage te laajte wu ñu woon loolu yëpp. mu wéy nag di leen laaj ñu delloo ko caution am ak akam ak yelleefam damay léegi ñuy dem déposer ji maa ngay dem conseil constitutionnel pour déposer sama recours.